الحمد لله بجميع محامده وهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وقدر الأيام والأسابيع والشهور وعلم المقدرات في سني الدهور والصلاة والسلام على سيد البشر خير من مشى وانتشر وعلى آله وصحابته سادات أهل الوبر أما بعد فيا أيها الناس فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا يوم أنجى الله فيه موسى من فرعون الطاغوت وأغرقه في اليم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم aw kama qaal bokk yi di jiital di sant borom bi nga xamante ne moom moo yeyoo cant ci mbooleem façongu cant ya ndax borom boobu moom moo bindi asamaan dal di bind suuf defar lëndëm defar leer sàkk guddi sàkk bëccëg defar ay semaine defar ay weer defar ay at borom bi tabaraka wa taala nit ki ci biir yooyu le waaye di ci neenal itam nit ki ci diggante yooyu ñu di koy sant borom boobu nga xamante ne ci mbaxam la may ñu fekkee ci yenn ci fan yi fekkee waat yenn yi ci semaine yi fekkee waat yenn yi ci weer yi fekkeewaat yi yeneen yi ci at yi di ñaan ci yàlla mu def suñu dund mu doon lu barke gannaaw ba mu ñu gërëmee ci biiru dund boobu la borom boobu nag moom rek moo xam li làkku moo xam itam la muy dogal ci jaam bi nit dana xëyee am lu mu njorto am lu mu foog waaye balaay ngoon kii ne ne nu bokkul ak na mu buggee woon ak na mu fooge woon di julli nag gannaaw ba ñu fesalee suñu seede bu wér ak suñu ngëm ci borom boobule ne moom rek mooy ki yeyoo jaamu te moo yeyoo topp teg ci suñu sang ba mooy ndawam bu sell ba nga xamante ne mbugeelam ci ñun feeñal na ko ca yàlla feeñal na ko ca ñun di ñaan ci yàlla mu wàccee ci mu ay xiiwal wàcce ci moom ay nuyoo wàcce ci moom ay teraanga moom moom mu nga xamante ne lépp luy mbindaafoon yàlla sàkku ko mooy ki la sàng képp kuy dox ci kaw suuf itam moom mooy ki la gën fàttewuñu ay saxaabaam ñamu mu àndaloon ca liggéey bu rafet ba waaye doonoon liggéey bu diis liggéey bu metti waaye ñu taxaw fas ci jom am seen ngëm ak seen pas-pas ba fa mu bëggoon ñu jàppale ko ba mu yegg foofule di ñaan ci yàlla nag mu boole ñu ak yonente boobu ba ñu teqale ak moom boole ñu ak saxaaba yooyu ba ñu wuutale ak ñoom ba keroog ba la mu dogal ci ñun di yegg si yàlla na yéex doon ay at yu bëree bëri tey nag mënuñu ko ñàkkaa waxee ndax lu rëy moo paase te mooy at bu jeex waaye lu rëy moo teew teru mooy at bu bees la ca romb xamuñu ndax nangu na walla nanguwul ca la ca rafet ndax jéggal na wala jéggalul ca la ca jagadi kon mu doon lu rëy di ñaan ci yàlla mu jéggal ñu la ca jagadi te nangul ñu la ca rafet at taxaw na xamuñu la mu ëmb xamuñu la mu ñëwaale ndax jaam amul dara lu dul lan di ñaan ci yàlla boole ko ak ay mébét waaye mënul dogalal boppam du jottali boppam du fànkal boppam kon muy diggante ñaar yoo xamante ne benn bu ci nekk lu rëy la kon mën nañ koo ñàkk waxtaan mu doon ci fii ñu taxaw junne at ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom benn boko ɗon konte caggatda yonente ɓe sallllahu alayhi wa sallam ɓe tey jiño taw mu ɗon ɗo raglu ndax yonente ɓe nena nu mu gena deme ci ay at jamano gena dem rek nena digena yees digena jagati bo gesto do gisati ku baax bo xoole ci sa kanam do gisati ku sella mu ɗon loo xamante ne jaaxal na jullit te il faut mu dund ci kaw ci kaw suuf ànd ak nit fa mu cosaanoo nag dañ koy nettalee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ba mu yegsee madina ca gàddaayam bu njëkk ba dafa gis yahudi te ñoom la fekk ñu doon ahla kitab ñuy woor bés bu mel naka bésu tamxarit doon ci wér bi nga xamante ne moom moo teru ni te mooy muharram ba mu leen gisee ñuy woor te ñoom ay yonente ñoo leen jàngal lu jar a bàyyi nit ku nekk waruloo di dundee rek ci neen wala di def lu la neex toujours dangay ngay roy ci ñi nga xamante ne di xool ci ñi nga xamante ne xëy na yàlla wax na ak ñoom te ñoom ñooy ñi jàng téere yi nga xam yonente yi ñoo leen jàngal te yonente kenn waxul ak ñoom ku dul yàlla yonente bi yegg si Madina fekk leen ñuy or bés bii te ñoom yàlla wax ak ñoom ndax naa Muusa moo leen jàngal mu laaj leen bés bi ngeen di woor fu ngeen ko teg ñu ne ko bés la boo xamante ne bés bu ñuy ndamoo la bés bu rëy la ci ñun ndax dañ ne woon doole Firawna dañuy toroxal ñu xëye yàlla yoon yónni Muusa torox ba continuer ñu xëye yàlla jox ko ndam jox ko doole mu ànd ak ñun génne ñu ba ko na toppee ci bés bu mel nii mooy tamxarit mooy fukkeelu fan ci weer bi ñu nekk nii mu ne yàlla alak ko ca wone doole kon bés la boo xamante ne dañ koy ndamoo di koy sant yàlla ba at ba dellusee Muusa oor ko sante ko yàlla ñu ànd ak moom oor ko ba tey ji ñu koy sante borom bi tabaraka wa yonente bi ne leen lu am solo lu jullit war a jël tey ji ne bu fekkee ne yéen da ngeen di roy ci muusa man Muhammad maa ngi na yelloo Moussa ci yéen kon dinaa ko roy dali or bés ba kon moo lay won ne diina royante la boo gisee kuy def lu baax mu rafet fexeel nga royi ca bi am ca la mu am waaye nag lu jagadi nga di cay roy te moo gën a bari ci jamono lu jara mooy ta moo tax Seydina Muhammad ne Muusa ñu ñoo ko gën a yee yeeyoo kon dinaa ko roy te pourtant Seydina Muhammad moo gën Seydina Muusa alayhi salaam kon nit bu gisee lu baax waru ci di ciy doylu boo gisee lu baax xenc ko topp ko roy ca bi bala ca yàlla di jox lam la war a jox mu wund nag moom bés bi ay ngeneel yoo xamante ne ay ngeneel yu yaatu la li ko waral yàlla bind na lu mat fukki weer ak ñaar waaye ci weer bi nag mu jagleel ci yonente yi seen bés ndax nit ku nekk am na bés réew moo dem am na bés ndax loolu ñuy tuddee fin de indépendance ak yu mel noonu wala yowmul watan yi bésu réew ma la bi réew maa ko moom waaye léegoo léeg nit ki am bésu boppam yonente yi bañ jeex nag ku ci nekk sa bés yàlla def la ko jagle ci bés bi nga xamante dama la ñuy tuddee bésu tamxarit ndax ku mel naka sayidina adam mooy abul bachar ñu xam ne ci moom la mbind yàlla soqee ko ci ñun ñii kon mooy suñu maam ñun ñëpp seydina adama bésam bésu tamxarit la woon ndax ci bés bu mel nii ci la yàlla woote asamaan ak suuf ba ñëpp wuyu ko mu ne leen bind naa mbindaafoon boo xamante ne teral naa ko kay leen ngeen sujudal ko malaaka yépp om on ànd dal li ñëw sujudal ko lu dul ku mel naka iblis alquran illa iblisa aba kon bés bu tamxarit ci la asamaan ak suuf mboolem malaayka yi ak lu yàlla bind ci la sujudal nit ngir màggal ko ngir ne yàlla fal na ko ci kaw ñu kon suñu bés la ñu ñëpp bokk ndax ci lañu ñu yàlla tànn ku mel naka Seydina Idris nekkoon yonente bu toppoon ci kaw Seydina Adama ndax moo jiitu Nuux ci bés bu mel noonu ñuy tuddee tam xarit ci la ko yàlla yekkati dugal ko aljanna lu mu masta def moom rek la ko defal ndax ku mel naka Seydina Idris jaamu yàlla bi mu doon jaamu ak ni mu ko doon sellale dafa xeexe yàlla invité ko ne kaay dugg aljanna ba mu duggee ca aljanna ba mu wax yàlla benn kàddu boo xam yàllaa ko wax ndax malaayka kay jël si nag ne kaay génn mu ne leen ku xasa dugg aljana du génn yow yàlla yaa ko wax yaa ne ku dugg aljana du génn yàlla ne ko xamoon naa ko kon toogal kon bés bu mel noonu ñuy tuddee bésu tamxarit ci la yàlla ubbi aljanna boo kon su fekkee ne ubbi na ko ci boroom xam-xam yi njortu ci ne est-ce que du dooni yowmal qiyaamati ci la ko yàlla di ubbi ndax am na ñu wax ci borom xam-xam yi ni koy xadis bi waxee ne bésu àjjuma ci la àdduna di tukki am na ay boroom xam-xam yu ci teg ci riwaaya ne te bésu tamxarit lay tombe kon mu mel ni àdduna sa tamxarit lay jeex aljanna bésu tamxarit lañ koy ubbi kon bés boo xamante ne ci la ñuy ubbi li nga gën a bugg te mooy na bés boobu bu yegsee war nga caa def ay effort jëm ca góorgóor ku mel naka Seydina Nuux alayhi salaam yàlla yónni woon ko lu mat junne bu manqué juróom fukki at mu di cay woote ñu te ticc ci loxoom ne duñu topp yàlla duñu wéetal yàlla te wéetal yàlla rek la soxlawoon ca ñoom waxu leen sa bàyyi leen bakkaan ñu bañ ba tëdd bu ko toroxal yàlla bañ yàlla ñëw dooleel ko may ko ndam yëkkati ko ci bés bu mel nii ñuy tuddee tam xarit ba keroog nga xamante ne presque dañu wax ne àdduna tukki na ba yàlla dafa mujjee wax malaayka yi ne duma ma ko defati mbugal mu mel ni du amati ndax boobu ñëpp tiit nañu foog ne xanaa àddunay waaj a tukki suuf génne la mu am ca ndox asamaan di génnee la mu am ca ndox yàlla alak lépp lu nekk ci kaw suuf juróom-ñaari nit rek ñoo desoon ci kaw suuf ak la yàlla soob ci yeneen bindaafoon ci bés bu mel naka la ci bésu tamxarit ci la yàlla dindi loolu ne gannaaw ne ki tey ji nag façon mbugal bii duma ko defati kon bés boobu itam suñu bés la ñun ndax yàlla defal nañu ko ci lañu ñu bu dul woon bés boobu bu boobaa nit mën na sànku ras ba jeex comme yeneen ras ya nga xamante ne noonu lañu jeexee ca ndox moomu la yaa rabbi lakal hamd moo tax ñu di cay jàngee la Seydina Nuuhin defoon mooy ba ñu wàccee amatuñu dara presque ñu wàcce a xiif Seydina Nuuhin ne leen ku ci nekk la nga am indi ko kon loolu ñuy tuddee takafulul ijtimaay mooy jàppante ci biir société bi Seydina Nuuhin moom la njëkk a def keroog bés boobu le mooy nañu jàppale ku ci nekk la mu am suuru ko te bu fekkee ne jël na ko dana am ñu dul am moo tax barke baax te barke ñu ngi koy amee ci bokkoo taamul waahid yax fii isnayni la yonente bi wax dépense su kenn doy na ñaar mu ne kon seddoo ko ba mag yi bu njëkk foofu la ñu jëlee woon léegoo léeg ñu ñëw ci jàkka ji wala ci jumaa ji ñu ne am naa dépense ñetti fan ku amul dépense suba na ñëw ci man ma lebal ko fii lañ ko jëlee ci Seydina ci bés bu mel nii nga xam la ñu tuddee tamxare ba mu wàccee mu nekk ci nekk la nga jota tee bu lekk de te bul denc indil bañ ko indee kii indi tuuti dugub kii indi tuuti basi kii indi tuuti mbokk kii indi tuuti ñebbe mu ne boole leen ko ngeen wal ko ngeen jaxase ko ñu togg ci boo xamante ne basi jiddan boo xam ne bu ordinaire la ba ñu ne sax lu yi ñuy tuddee cere tey ji nii foofu la ko mag ñi jëlee ba tam xarit bu jotee ñuy defar seen cere kon mu mel ni loolu ñuy tuddee jàppante ci biir société bi Seydina Nuhin moom la njëkk a def ci bés bu mel nii ngir sampee ko société bi ne kon dañ war a jàppalante kon ngeen la nañuy jàppalante ci lu nekk nag bu fekkee ne rafet na su fekkee ne baax na te bàkkaar nekku ci te araba dafa wax ne almaru bi axihi kathir gis nga sa mbokk boo ko amee rek ne na bari nga am nga doole waaye boo ñàkkee sa mbokk nag ñàkk nga doole kon bés bu mel ni nañ ci jàppalante boobu ku mel naka seydina ibrahim xarita bi yàlla ci bés bu mel ni la ko yàlla fal oo asamaan ne leen seydina ibrahima masuma am xarit waaye kii jël naa ko muy sama xarit ci bés bu mel la woon mu doon bés bu rëy ci moom kon ko ci góorgóoru mel na muusa na seydina ibrahima meloon yàlla mën na laa jël xarit ndax balaa man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin yàlla ba mu tuddee ne jël naa Seydina Ibrahima xarit ne fi ma ko teg ne dafa jébbal woon ci man te rafetal ay jikkoom rafetal ay jëfam kon ku xaw a mel noonu jéem caaro yi yàlla mën na laa jël ngay xaritam ku mel na naka Seydina Daawud yàlla nattoo woon ko benn defo yàlla tudd ko waxu ko mu di koy jooy lu mat ñeent fukki guddi yoo xamante ne dafa si siggiwul di koy jooy di jéggalu ci yàlla xoolal yonente te pourtant yonente bi jéem nañu leeral ne bakkaar ba xool la woon dafa tolloon ci kaw paleem bi rek boo tam ko mu xool ci suuf gis benn jigéen xool boobu mu ko xool muy xoolu bànneex yàlla nattoo ko ci ndikete bakkaar la yeddu ko ci xas ko ca mere ko ca mu toog ñeent fukki guddi yoo ñeent fukki guddi yoo xamante ne dafa sujud amul lekk amul naan amul jog amul nelaw amul lenn lu dul di jooy ci yàlla ci bés bi mel ni la yàlla yegg ne ko jéggal naa kon xoolal ñun li ñu def ci ay bàkkaar te bu ñu paree ne ah loolu dara nekku ci yàlla ko baax la yonente bi nee na misaalu jullit bu defee bàkkaar dafay mel ni yéen nga ko montagne Uhud waaye mu ne misaalu saasaay wala naa fekk nar a sànku nee na bakkaar dafay mel ci moom koo xamante ne weñ a ñëw tong ci bakkan ba mu dàq ko mu demaat rek mu continuer liggéeyam kon bakkaar kenn du ko oyofal ku ci am bakkaar itam fexeel ci bés bu mel ni xanaa nga jéggalu la yàlla mayoon daawuda xëy na mën na la ko may rabbi ixfir warxam wa anta xayru rahim ku mel naka suleymaan yàlla mayoon ko nguur ci biir loolu may ko xam-xam mu doon yonente mu bokk ci tànne lu bariwul jamono di dem ba yàlla natoo ko nguur ga ci loxoom càggante la woon niñ ko waxee ndax ndikete am na luy xew ci këram te yëgu ko mooy am na benn soxnaam bu nekk ci biir kër gi ba muy sëy si dafa indaale benn xërëm ndikete mu ngi koy sujudal yàlla ne ko ku sàggan nga kon dinaa nangu sama nguur xoolal ma li tey jii ngay seetaan ak bakkaar ci sa biir kër nga foog ne yàlla du la teg nattu yenn nattu yi xew ci xew ci kër bakkaar bu ñuy seetaan la yàlla nangu nguur ga ca loxoom ci bés bu mel nii ci la ko yàlla dellowaat nguur ga delloowaat ko nubuwa ba mu dellowaat ci société ba di liggéeyalaat yàlla ba keroog ba ko yàlla di jël ku mel naka Seydina Ayub te ñëpp ay yonente lañ alayhimu yàlla nattoo woon ko mu am alal di koy dépense ci yàlla waaye xolu añaan dab ko ba ñu yàkkal ko ko feebar dab ko ca dem na ba di koy bereng mana la dox manatu la def dara bu bugge ndox sa manuko jotali bopam ay bokam bayiko ko ay soxnam bayiko ko mu def kenn ka nga xamantene mo mandu won def ak mom ay xaritam bayiko ko lu mat ñaari at yo xamantene mo ngi ci torox toroxtaange bobu ak ciono bobu ak febar bobu ci bes bu melni ci la ko yalla wàcceel ndox bu barke ne ko sangu ci nga naan lepp lo amoon ci febar jeexna ci yow boo demee ba ngoon dana am lu ma yónnee lu mel naka ay njéeréer yu bari jàpp ci lu la neex nga fat ko fi nga koy fat boo xëyee danaa la ko defal mooy wurus kon ci bés bu mel ni la ko yàlla defalaat loolu le yàlla na yàlla baaxee ku mel naka Seydina Yunus alayhi salaam ba yonente bi wax ne ku wax ne maa ko gën yaa ngi ci erreur ndax ku baax la woon te ñu ne bu fekkee ne ci yonente xaw na am na ku ci xaw a diir ak yonente bi mbàgg sa Seydina Yunus lay doon Seydina Yunus yàlla nattoo woon ko ci ay bokkam ñu bañal ko mu am lu mu waxante woon ak yàlla ba yàlla ne danaa ko def ne danaa leen alak far ba ñu yégee mbugal ba di ñëw rek ñu jëkkati seeni loxo di jéggalu ci yàlla moo tax jéggalu am solo yàlla far dindi mbugal ba Seydina Yunusa loolu xaw ko def kersam mu daw dugg ci àll yàlla ne ko ku ma yónni du daw dellusiwaatal dugal ko ci kaso boo xamante masu faa dugal kenn mooy ci biiru jën ba ci biir géej ba ci biir lëndëm ba mu am fa ñeent fukki guddi ci bés bu mel nii ci la yàlla jox orgal ñu génne ko ca prison ba mooy jën ba ñëw yàbbi ko ci tefes ba mu jóg yaram yépp mu ngi def ay góob yàlla dal di génne garab bi ñu tuddee naajo ci wetam ne ko lekk ci li des nga jël xob yi nga muur ko ci yaram bi bu ko defee weñ yi duñ la sonal te lépp luy goom ci yow dana wér loolu mu ngi ko am ci bés bu mel nii kon képp koo xamante mu ngi woon ci njàqare boo delsiwaatee ci yàlla tuub ci bés bu mel ni xëy na mën na yàlla mën na koo boole mu bokk ci say bés ndax lan moo waral yàlla tànni bés bi di koy defal ñi mu gën a fonk kon bu la yàlla fonkee mën na laa defal nga bokk ca bés yooyu la mu bokk ci sa bés yi ku mel na kay Yuusuf ak Yaaqub ñu tëkkale ko woon diggante doom ak baay ak ni mu neexe waaye mu am lu xewoon ci seen problème mu seen diggante mooy famille ba ba ñoom ñaar mënatuñu gisee lu mat juróom-ñetti fukki at ku ci nekk di xemem gis sa morom te mën a koo gis ku mel naka bàyyi ja génnoon ci sonn jooy bi amatul ay bot ci bés bu mel nii ci la leen yàlla wonale waat ñu gisante waat keroog amul lu ko gën a neex ci kaw suuf ndax yaquba gisee ak doomam bi te dara yàquwul ca la nga xamante ne moom la séntu woon ca moom yuusufa gisee waat na ak bàyyi ja te borom bi tabaraka wa taala delloo waat na ko la manqué woon ca moom mu doon bés boo xamante ne mbégte ñaari yonente la moo tax ñu sopp ca ku ci am waay jur fexeel nga gisee moom bu fekkee ne kenn ka mooy dund ak yow fexeel bi nga giseek moom bu dee ci jamono bii tam mu xaw a sori yeneen nouveau technologie yi xew ci jamono nga mën a gisee moom par internet wala par téléphone nga dégganteek moom yu mel naka noonu rafet na waaye dogook sa baay wala dogoog sa waay jur bu jigéen moo xam ku góor la moo xam ku jigéen la jigéen ba dogoog baayam wala dogoog yaayam ci bés bu mel ni na fexe delsiwaat bu dee ku góor la dogoog baayam wala dogoog yaayam na fexe delsiwaat waaye bu dee ngeen la yow yaay baay wala yow yaay yaay bu la sa doom ñëwee ci bés bu mel ni jéggalu si ne baal ma amal xol bu rafet nga jéggal te baale te bu ko teel dara ndax li ko waral mooy yàlla man leen a boole ci ñaari bés yooyu nga mën a bokk ak yaaku bu dee way jur nga nga mën a ànd ak yusufa bu dee yow doom nga ku mel na Seydina Isa alayhi salaam yahud ya xataloon ko sonaloon ko parewuñ dara ci moom lu dul rey ko toroxal ko ci kanam ay noonam ndax jël nit rey ko yomb na boo ko reyee loo defati ci yaram bi yëgatu ko waaye jël nit ki nag muy dund nga di koy toroxal moo gën a metti wal fitnatu ashaddu min al qatl te loolu lan pare woon ci insa buñ ko jàppoon ndax kañu jàppoon noonu lañ ko def dóor ko façon dóor yu metti sotti ko ndox bu tàng wéejal ko ci kanamu ñepp yen ko yen bu diis di koy reetaan ci mbedd bi di ko yóbbu ba ci digg àll ba ñu door a jël daaj ko bàyyi ko fa nag xam nga kooku pare ñu rey toroxal lañu paré ci bés bu mel nii la yàlla wax seydna insa wax yàlla ne ko boo ma rek ñu toroxal yàlla ne ko maa ngi nii jege kon ci bés bu mel nii képp koo xamante ne daw na làqu ji ci yàlla xëy na yàlla mën na ko boole mu bokk ci sa bés ya alayhimu salaatu wassalaam waaye comme yonente bi lu yàlla sedde moom mooy bopp ba kon il faut mu bokk ci bés yàlla sedd ko ci sedduñu ñun ñun sa ngay wax ndax lu mu am pour ñun la ci bésu tam xarit ci la ko yàlla boole ki ñu tuddee Khadija ci la sëy boobu mat te xam ngeen ne sëy moo gën a wàllu diine ci la yonente bi njëkk a xam soxna ci la jëkk a xam jigéen alayhi salaatu wassalaam muy xadiija bi nga xamante ne ci moom la jure njaboot bi ñuy tiitaroo tey jii ci kaw suuf yonente bi ne bu fekkee ne gaalu nuuhin am na misaal tey jii mooy sama xeet ci sama xeet mooy sama njaboot ne ku jàppande ko ci sama njaboot da nga mucc waaye ku leen bàyyi comme gaalu nuuhin ba ci bes bu mel ni ci la njabot boobu commencé ci lañ ko fondement ndax ci la yonent bi sala sallam say ak kan ak ki nga xamante ne moo leen tuddee xadija mu wax ko ci hadis bu wér moom yonent bi liñ ciy ndamoo ñun mu ne bàyyi naa leen ci diggante ñaar ñoo xamante ne bu ngeen ci jàpp du ngeen sànku fi may yéen ñu ne ko mooy lan ak lan mu ne mooy alquran ak sama njaboot ku téye ci alquran téye ci sama njaboot nee na doo sànku mukk abada njaboot boobu nag ci bés bii lañ ko fondement moo tax mag yi di ci doon sopp lu ci ciy fas sëy yi waaye jamono seytaane lu nekk dina ca dugg tey ji bokk na ci li ñu aadaw di wax naan weeru tamxarit kenn du ci takk sëy ay erreur la ndax yonente bi sallallahu alayhi ci la takk sëyam ak Xadija te sëy boobu amul sëy bu ko gën a barke ci kaw suuf kon ay yëfu foox la ay yëfu caaxaan waaye itam ci bés bu mel nii ci la yonente bi gàddaay dem ma madinatul munawwara ci diggante noonam ya nga xam pare wu ñu dara lu dul faat bakkanam keroog guddi buñ ko gisoon rey rek lay rey rek mooy xew yàlla sowe ko muy dox ba yegg si madina ci bés bu tamxarit ci bésu tamxarit ci lay yegg si madina ba mu yegsee ñëpp gàttanu ko ngir sopp bañ ko sopp ak bugg bañ ko bugg kii ne kaay dal sama kër kii ne kaay dal sama kër ñu njëkkalante laxa bu ba pour ku ci nekk dalal yonente bi xoolal mbaax yal nañu yàlla may mbaax ku gàttanu mbaax rek yàlla woon la ne maa la gën foofu waaye ku tungoo mu mbaax nag yàlla woon la ne li ma am doy na ma ba yonente bi yegsee ak daara ca Madina bésu tamxarit la woon ba ñu yegsee moom yonente bi ca daara ja war a samp daara ji ku ci nekk nekkaay sama kër ngay dal ngir sopp ko ngir bugg waaye léegoo-léeg atte sa diggante yi mbokk wala say soppe du xaw a neex yàlla ñëw atteel boppam yonent bi ne leen bàyyi leen gëlëm bi ndax am na malaayka bu koy womat daoha fa innaha maamura gëlëm bi di dox ci biir madina ñëpp di koy xool muy dox di dox ba yegg si fii nga xamante ne foofu lañu ñu suul yonente mooy këram mooy jumaa ja mu dal di fay góor yonente bi ne kon fii mooy daara ja fii mooy palaas ci lañu keroog samp juma ja commencé tabax commencé defar ba tey jii nii moo tax lislaam yegg si fii besutam tey jii kañ la woon besu tam xarit la woon kon bes boo xamante ne ñun ñi ci lislaam ñu ngi koy tiitaroo waaye itam ci bés bu mel nii ci lañu yàlla natoo gom boo xamante ne dañ ko fàtte ba àdduna di tukki mooy seydina Hussein ci lañ ko rey ci lañ ko faat saa sa yow upp ko doole sonal ko xatal ko toroxal ko nga xamante ne képp kuy julli tey jii nii boo koy dégg sa xol jóg na ci bés bu mel nii la xew ba tey jii nii ñu di koy kafaara ci yàlla di koy jéggalu bu guddi ba jotee ñuy génne suñu sorax yi di def suñuy la di ñaan di jéggalu ci yàlla kon du poox de guddi bu ñu rey Seydina Hussein nga jël say tama di fecc ah déedéet xale nañu génn di wax ay kàddu yu rafet ndax kàddu yooyu noonu ñuy wax taalabun masalan kalimatu taalib la ay taalibe yi génn jàngkatu alquran ñi bugg alquran di leen di saraxal di jéggalu ñoom ñëpp ñu ànd waaye tey jii nga gis ay magam jëmm ñi di niroo góor ñi di niroo jigéen jigéen di niroole comme boppam góor te yonente bi ne yàlla ŋàññ na góor buy niru niru lu jigéen yàlla ŋàññ na jigéen buy niru niru lu góor ñu ne muy solo comme góor wala muy solo comme jigéen bés la boo xamante ne goom ba ca dal ba àdduna di tukki duñ ko fàtte ñu war ko def ci ay ñaan def ko ci ay jéggal ndax seydna xuseenu lu mu def deful dara lu dul lan fekk ay julli ci yu wuute mu ne danaa leen dëppale ba ñu àndaat fekk xeetu yonente bi féewaloo ñii jaar fii ñii jaar mu ne danaa fexe ba ñu àndaat pare yëkkati nag l'islam taxawal darapo alquran ñu ne ko du fi amee ba faat ko ca ba tey jii ni di koy jooy nga xamante ne kooku la yonente bi doon xool moom Seydina Huseynu benn bés mu doon julli di ci mimbar bi bés bésu àjjuma mu seen ko muy raam di ñëw mu dal di dox wàcc ca mimbar ba yegg ca moom yëkkati foon teg ci dënnam daldi ñëw teg ko ci wetam ci mimbar bi mu mel ni dafa am ñoo xamante ne loolu xawulee na neex mu yëkkati lo xale bi ne ko ne yow yàlla kii dama ko supp yow yàlla dama ko sopp képp ku ko sopp sopp ko képp ku ko bañ bañ ko ci bés bu mel nii la ñu jël Seydina Huseynu faat ko rey ko mu doon erreur bu mag boo xamante ne dal nañu ci xeet bi ba tey ji ñu koy jéggalu ci borom bi tabaraka wa taala yonente bi waxoon ne waa aljanna yi bañ jeex ña fa nekk xale yu góor te aljanna ñëpp xale yu góor la mu ne Xasan ak Huseynu ñoom ñooy sànq ya képp kuy xale lu góor xasan ak Ousseynou ñooy say sàng boo fekkee ne dugg nga ca aljana ñu ne waxin la lam ca namm rek mooy képp ku faatu ci ngune nekk xale lu góor faatu ndax ñoom ngune la ñu dunduñu lu bari ñeent fukki ak tuuti rek la teg Seydina Xasan ñu rey ko Seydina Ousseynou ñu rey ko mu ne képp ku faatu nag ci ngune nekk xale góor bu yowmal qiyaamati jotee nee na ak xasan ak xuseenu ngay ànd su fekkee ne sellal nga kon war nañ bàyyi xel de xale yu góor yi kuy sa royuwaay déedéet du woykat yi ngay xam ci jamono du fecckat yi ñu xam ci jamono du mbor yi ñu xam ci jamono du defarkatu théâtre yi ñu xam ci jamono xam nga kuy sa royuwaay su fekkee ne xale bu góor nga bu góor walla bu jigéen xasan ak xuseyn ñii ñooy sa royuwaay Seydina Xuseynu ci besu tam xarit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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين وبعد عباد الله ما كنا نرويه الآن هي قصص من التاريخ وأيام لا تنمهي إلى يوم الدين أما ما يفعله المسلم إذا رزقه الله فشهد هذا اليوم فقد ذكروا أنه مكتوب في التوراة man saama yowma ashura faqad saama dahra la ci niñ ko doon waxee léegi ay xew-xew la mu doon bés yoo xamante ni yàllaa ko jagleel gaayam yi yal nañu yàlla boole ci ñamu jagleel boole mu boon ci suñu bés ya ndax dañuy wax ne yàlla amul li ñuy tuddee par hasard par hasard buñ la ko waxee mooy tombe yàlla amul tombe lépp lu mu def rek programme la qadarnaahu taqdir kon bu programmee noonu dippi ca taarix ba ci Seydina Muhammad di defee noonu kon ci la ñuy xamee ne kon bés la bu yàlla fonk boobu kon ku ci yeboo taataan ci la ngay taataan bu dee en tant que jullit nag la ci rafet bu fekkee ne yàlla may na ko ba mu fekkee bés bi yàlla nañ ko fekkee at yu bëree bari bëri bëri bëri ci njub ci sutura ndax léegoo lekk nit ki fekkee waaye fekkee wuute lay doon mooy ñu ngay añ fekkee na añ ba waaye daf ko fekk muy nelaw xam nga kooku bokkul ca añ ba waaye fekkee na añ ba kon léegoo léeg teraanga fekk la ni nawet di fekkee nit waaye nawetul fekkee na waaye wuute na nawet ba kon léegoo léeg bés bi ak la mu wund ci ay ngeneel la mu ëmb ci ay leer mu fekke la fi waaye xamuloo li nga war a def bés bi romb la noonu def bu dee en tant que jullit nag loo war a def ci bés bi ñu dellu ci tawraat ne boo demee ci tawraat muy téere bu yàlla wàccee ci Muusa mu ne man saama yowma ashura bésu ashura ku ko oor fakat saama dahra kulla nee na dafa mel ni dund na at bi yëpp mooy bésu ashura mooy tam xarit kon bàyyi ci xel ko nee na ku ci jël loxoom masax ko ci boppuy jirim jirim mooy koo xamante ne gisatul baay te léegoo léeg muy am ci kër yi ñu du leen di toroxal di seet ne baayam nekku fi te yonente bi nee na kër gi yàlla gën a fonkat yi mooy kër goo xamante ne jirim a nga fa ñu di ko fay toroxal muy jooy mu ne kër gi gën a fonk yàlla gën koo fonk ci asamaan mooy kër goo xamante ne jirim jirim a nga fa di koy teral ndax yonente bi jirim loom bu ko fàtte alayhi salaatu wasalaam mu ne nag boppu jirim ku tel te jël loxoom teg ko ca nee na ci karaw bu sa loxo bi romb ci boppuy jirim ba te li mu karaw kenn mënu koo lim nee na fu sa loxo bi laal ci bopp bi rek yàlla dana la ko defal garab ca aljanna te garab ba nag la ca nekk ci ay meññeef kenn mënu la ko konteel te façon bu nekk itam nga fay fekk fii ci àdduna ngay gis garab boo xamante ne mango rek lay génne boo soxlaa ndarkase da ngay dem ci beneen garab mu ne waaye garab boobu noonu loo bugg ci façon mu nga ca benn garab ga kon kooku dafa mel ni tool la bokk ak garab ba naka la war a toll kon baax na ci ñu am yërmande ci naan ci xale yi nga xamante ne gisatuñu bàyyi waaye ñëpp sa la ombaale képp kuy xale rek képp koy xale rek bugg ko nga won ko cofeel ci yow seddal xolam loo ca man ndax li ko waral mooy kii amagul bakkaar ku set la ci yàlla ku seddal xolam yàlla seddal sa xol kon bu ko defee xale yi ñu bàyyi leen xel ci bésu tamxarit yi fexe ba seddal seen xol surtout ñi nga xamante ne gisatuñu bàyyi wala gisatuñu yaay am na ñu wax ne sax ci biir la ko yàlla di sampal garab yu toll noonu ca biir aljanna nee na bakkaaram ya itam yàlla dana ko jéggal lu toll naka la mu laal ci karaw subhanallah kon baax na boog ci bés bu mel nii ñi nga xamante ne ñoom ñooy avenir dëkk bi suba ñooy avenir u dëkk eh, xeet bi suba nga xamante ne ñoom la ñuy tiitar ndax ñoo ñuy wutu ci gannaaw ku fooxee xale rek dof nga ndax ñoo lay wutu te ñoo lay yóbbu ca kanam bu yàlla dogalee naturel di am xale yi ñoo lay yóbbu ca kanam ñoo lay julle ñoo lay jàngal ka ñoo lay bëgg di ñaanal kon ku fooyee xale yooyu dangaa xamul kon xale yi nañ leen bàyyiwaat xel surtout ci éducation bi yar leen yar leen yar leen defaraat leen ku defar sa gune sa bopp nga defar ku defar xale yi ci dëkk dëkk ba nga defar kon nañ defar xale yi te yërëm leen te xool dafay yëg xale am na nooy waxee ak moom rek mu yëg coxor ci ci yow rek jeex na ci yow même boo ko yónnee bu la nangulee sa waaye xolam joxatu la ko ndax joxuloo ko sa xol xale xamul amul xel waaye dafa am xol buy yëg bu set wecc nag kon ñu bàyyi xel xale yi ñu ne ci bés bu mel nii ku ci génnee sarax sàq sarax joxe ne dafa mel ni képp kuy yelwaan ci at bi ne na yelwaan sarax nga ko kon sarax ci dafa mel ni képp ku doon yelwaan ci biir at bi dafa mel ni yow yëkkati nga jox ko sarax ko yow kon loo ñàkk ñàkk fexel ba bés bi nga génnee ci tuuti génne sarax ndax sarax du dara lu lu jóge ci xol yonente bi ne rubba tamratin tasbiqu tamrat ñen ñi ne awuma dara lu may sarax waaw ka nga xamante ne moo jël benn xaritu tàndar maam saraxe gennawal bi lu mu am te yonente bi ne boo ko defee yàlla nee na maa ngi koy gis bul xeb sarax ndax bu dee yowmal qiyaamati sarax moo la fa mën a musal ca safara alquran a ko wax nee na képp ku génnee sarax di koy joxe ci yàlla nee na kooku di mucc ci lan ci safara kon lu ko waral mooy ngéneel ba ca nekk nee na bés bu mel nii nag sopp nañu nga di ci sàkk ay sarax di joxe loo xat-xat xol loo siis siis siis loo ñàkk ñàkk ñàkk génneel nee na ku ci génnee ku réeroon nga wax ko kàddu rafet ba mu del si waat xelam del si waat ci njub bàyyi njubadi ba mu nekkoon nee dana xolam ba ak kon lu mu boni boni boni boni waxal sa sa njaboot bu dee sa soxna dafa nekkoon ci erreur nga noppi rek di koy seetaan bu ni bu jotee toogal ak moom waxtaan ne ko yaa ci erreur ngeen lijjante ko ba ñoom ñaar ku ci nekk xam ka ca tooñ ka ca tooñ jéggalu bu mu romb bés ba te xamuñu ki tooñ ku ci nekk jéggal ndax léegoo léegi yenn yi erreur lay doon ku ci nekk foog ne maa man la ñu tooñ bu dee dëkkandoor na ñu defee ko noonu ak nu mu manti doon ci façon boobu ku nekkoon ci erreur nee na boo ko gindee woon ko nekk yaa nekk ci erreur ba mu dellusiwaat bàyyi erreur ba nee na yàlla feesal sa dënn ak lan ak leer nee na ku ci woonaasu mer kaddu buñ la wax wala luñ la masoon a def nga mer bés bi yegg si nga jël sa tànk déggaat ca metti na waaye nga muñ ne jéggale na nee na yàlla dina seddal sa xol ba ñëpp xam ne am na koo jëflante ni mu ko waxee katabahu llahu min arradina ne yàlla dana la boole ci ñi bég ci ñi kontaan wa man akrama fihi maskinan akramahu la yowma yu daw fi qabri lépp ci tawraat de lii waxu yàlla la ca tawraat nee na ku ci teral ku ñàkk doole ku amul doole nga teral ko imma la mu sol imma la mu lekk même su fekkee ne sax ci kaddu nga ko terale nga wax ak ma wax bu rafet ba mu yëg mbégte ak kontaante nee na keroog bañ lay suul ci biir bàmmeel keroog yàlla dana la teral ci bés mu mel ni ku def loolu kon sopp nañ ci daal def ci yépp nga xamante ne benn bu ci nekk rafet na عليه الصلاه والسلام لي واخو يالا لا موم يونس تبي صلى الله عليه وسلم نيامباس كي نه من وصى على عياله واهله يوم عاشوراء وصى الله عليه سائر سنته كو تي فخه بي ياتال نجابوتام لا مو بوني بوني بوني بوني مو ام لو ني ليك مو باخ مو ام لو ني سول مو باخ تي بيس بي nga fexé ci sak gene ci sa alal jox sa njabot bi ñu contane ci yow neena li dess ci at bi yeb dana la yomb la ngay génne ci bésu tamxarit joxe ko muy dépense nee na li des ci at bi yépp dana la yomb kon man shaddada shaddada allahu ku nanguwul a génne boole kook nay ngottu tee fa nga téye ne man bokkuma ci yooyu yàlla tee fa mu téye li des ci at bi yépp mu jafe ci yow kon ku boo teral ci njabootam loo am nga jox leen terale leen ko teraluloo leen sa bopp nga teral ba léegi yonente bi ne alayhi salaatu wassalaam Nenabes besu tam xarit ku ci julli ñent raka pour bañ ko def ci ay pox ak ci ay tiaxaan waaye def ko ci jaamu yàlla yonente bi ne ku ci julli ñent raka raka bu ci nekk nga jàng fatiha teg ca suratal ikhlas ñep mok ñep ko mokal qul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad nga jàng ko lu mat fukki yoon ak benn ci raka bu ci nekk ñent raka ya, muy ñen fukki rak ñen fukki ikhlas ak ñeent dina boromam yàlla jéggal na ko bakkaaru juróom fukki at kon kii ci mag la gën a baax waaye baax na ci xal bakkaaru juróom fukki at nee na boo defee ñeenti rakkaay yàlla jéggal na la ko te ci biir loolu yàlla dana ko tabaxal benn lal boo xamante ne leer lañ koy defaree lal ba di koy xaal ci aljam lal ba defaree ko armiño defaree wuñu ko bant bois defaree wuñ ko palastik mooy nilon waaye ñu ngi ko defaree leer te leer dara du ko yàq amul penturaat amul dàmm na ila axirihi kon baax na ci boobu jaamu ci borom bi tabaraka wa taala dara ñu tëjee ko ñaan ñaan boo xamante ne am na ñuy wax ne yonent bi moo ko wax aley salaatu wassalaam ne na ku jàng ñaan bi seytaane ci boppam bu la déggee dafay wax moromam yi ne leen ah kii moom mënatuñ ci moom dara naagu nañ ci moom ki ricc nañu ba pare comme ni ngay dàqee dara rek mu ricc la nga xamante ne pare nga ca moom nga bàyyi ko fa dem sa yoon mu ne noon la seytaane di def boo jàngee ñaan bi di ñëw seytaane dafay wax ne ah kii moom perte nañ ko ñàkk nañ ko ba pare te jaam bu nekk loolu la sox te ci biir loolu yàlla na la booleeg ñaari malaayka yoo xamante ne ci at bi yépp ñoo lay bugg di garde bu demee ba bakkan bi bugg la réeral rek ñaari malaayka yi yedd la ni ah déedéet bu ko defee noonu ñaari malaayka ñoo lay bugg di aar be at ba del si wat ñaan boobu mooy bii di ñëw اللهم أنت الأبدي wa وهذه sanatun jadida أسألك فيها العصمة من الشيطان وأولياءه ولا عون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم اللهم أنت الأبدي القديم وهذه سنة